Anyways.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 dal di koy yekk lu mel ni xeme man boobu nag bëri na ci réew mi bëri goo xam ni boo wattuwul mën naa dugal réew mi cim guuta kàcc réew moo xam ne dañuy wër say ayib suñu demee nag ba amuñu lu ñu wax ci yow dañu lay sosal fen kàcc ci sa jëmm seen ba gëm seeni kàcc wasaare dal di gëmloo nit ñi seen kàcc ay waay ñaata nit lañ fi rey ñuy dox dóor leen fetalu làmmiñ waa ji nag moom dootu ko defati ndax ci tiktok bi la nekk def ab vidéo sosal ministre du travail de l'emploi et relation relations avec les institutions di Yankhoba Diémé dal dina visite de travail ba mu doon def ci cimenterie bu Sahel ajjuma fanweeru fan ci weeru ut bi weesu dañu ko fa bokkal ay toni ciment yu takkoo takku seetal ma lii rek waa ji nag gannaaw widowam boobu cimenterie bu Sahel ci boppam ñoo génn dal koy weddi raxas kaccam yi ba mu set wecc ne li muy wax dara mu ci te nag du ñu yem ci setal rek seen bopp ndax di dinañu déposer ab plainte ndax seen crédibilité entreprise la waa ji song fi mu ne plainte ba déposer nañu ko waaw góore waay na ñëw leeral li mu wax fu mu ko teg moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca ñaari tali romb na doy waar waaye daal moo jël ab këram dal di koy transformer bërëb bu ñuy jaayee drogue te it yemul foofu de sa waay bu la jaayee drogue ba noppi ci biir sambri fa nekk ngay dal di toog jël sa aise ba noppi dool la génn kër gi waa ji nee ñu at yi ngi toll ci cinquante neuf ans moom daal commissariat bu Grand Dakar ñoo jot ab ci moom daal di koy exploité naka noonu ci lañ def sant ci kër gi moom cerveau bi ci boppam tegaale loxo juróom-ñetti client yoo xam ne ñu ngi leen fekkoon ñu toog di consommer nee ñu ci juróom-ñetti client yooyu sax ñetti jigéen bokk nañ ci ay waay jigéen yeeg dorog ginnaaw seen exploit boobu ñu def na waa koñ ba yépp génn di leen tàccu di leen ovationné yuuxu jolle fu ne police seen liggéey rafet na ma ne leen nii la de dee leen collaborer rek gars yi di teg loxo moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca Bignona romb na doy waar ab liir lañ fa sànni ci biiri ñaax liir bi di jooy di jooy ba yuuxoom yooyu moo ko mujj sowee ay way ay way mim réew liir bi nee ñu ginnaaw bi ko sànnee ci ñax yi ay boori 10 laam ñu dégg ay yuuxu ci ñax ñax bi ñu xoolee xool xool fu yuuxu yi di jógee la ñu ñëw fekk ko mu di ab liir naka noonu ci lañ alerter gendarmerie ak sapeur pompier ñu ñëw jël xale bi dal di koy yóbbu ay waay ak doom ni mu neexee nga atte ne jur sa doom muy bakkan nga koy xool mu lay xool nga xoj ko ba mu dee wala nga sànni ko ci mbalit wala nga jël ko dem sànni ci ay ñax réew mi dama yaakaar ni xool amatul ci réew mi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz